di ci jiital njabootuk sëriñ tubaa gi fi xëy ci sooba nëgëni di jël siyaaram di ko teg ci loxob sëriñ Cheikh mii mi fi tooge toogaayu sëriñ Saalihu Ture ak njaboot gi yépp ci kaw loolee moom mii di wax moom ak sëriñ Cheikh mii ñoo bokk way jur loolee nag la ñëwoon ci mbokki taalibeem yi di leen siyaar ku baax kii duñ ni ki nu ñàkk ndax ñàkk mooy lu lu rëcc te dootoo ko jot ne léegi dafa ne sëñ Xaadim Ture bi mu leen wonee ginnaawam ngeen di soow a gis boppam am na lu ngeen xamoon waaye la ngeen umpale ci moom moo ëpp fii mu leen wane ginnaaw da ngeen gis ci moom dëggi dëggi taxawaayam ci yéen barkeem it mi ngi soog mi ngi door a samp ne démb bi mu fi ñëwee dafa ne sëñ Cheikh mii ak mbokki taalibe mi sëriñ Saalihu Ture kilifaam newul ci dëkk bii ku toog gataay daanaka ñeent fukki at ak ñeent musta soxla dara musta wut dara Tuubaa la muy tedd tedd ndigal li ko dajoon fii ëppaloon na ko doole barkeb Tuubaa mu toog fii di muñ di fi xaar yàlla ak Serigne Touba nekkoon alim joo xam ni di borom xam-xam te jëfe ko te jëf ko ci nit ñi kookee nag mu dellu Touba joti payaaram joti ngëneelam loolu mooy bisub démbam sëñ Mor Anta Sali Serigne Touba xëntewul bokkee kook Touba waaye sëriñ Tuubaa xantewul bokk ak moom foofee ca deqale ca deqale kon barkeb sëriñ Tuubaa mën ngaa xam fa mu dale waaye fa mu yem moom kenn xamul fa mu yem kon sëriñ Saaliw Ture nag ak ba ab barkeem day dóora te jikku ci njabootam kon tànk yi ne tànk yi ñëw set si ay bokkam la di ñu mu bokkal baay ak ñu mu bokkal kilifa gi di ay mbokki taalibeem ndax li doxoon diggam ak moom yaatu na te bari digleem mësta dañ ci ñun ay taxawaayam it mësta dañ ci ñun te man mii di xaadim caam xam naa ci lu bari kon tànk yooyu la dikk nag di ko feddali ku am taxawaay ku am fulla kenn du yab sëñ Tuubaa di ko jaar ci moom jëmmi boppam ji dafa boole ubbiku ak wegu lu jafe ci doomu aadama yor jëmm ju ubbiku waaye wegu kenn du di ko saraax foo warta yegg fa nga ci boppam ak wayaf teefa ngi woon ci moom mën na laa jël teg ci kaw yi mbaggam doonam nag xéewal gu nu yàlla yoot nag xam-xam bi woon ci moom ci Serigne Touba waaye mbooleem fànni xam-xam yi ci lislaam yépp loolee nekkoon ci moom xéewal gu nu yàlla yót la ñun ne kon nag loolee tey jii moom la ñuy dox di ko barkeelu daje nag ngërëm loo xam ni doomi sëriñ Touba yëpp ci kaw ba suuf ëttub koo fa koo fekk da jàpp ni ëtt boobu boo ko mosaan fekk suñ son yi bu doxalin suñ bi yëpp moo ko yor la muy di ko wax ci nopp bi loolu yi rek ngay gis sëñ di ko doxal Serigne Saliou nag waxewu ko. ak si ñëpp lat mi ko wóolu woon kon xéewal goog yii bu nu sunu sama borom yàlla joxoon la te du fi jóg ba mukk kon nag njaboot gi seen bopp it sëriñ Cheikh mii fi toog jataayu sëriñ Saliou Touré uu fi rakkam rakk yi nañ nangu kilifteef te uufu ci ginnaaw sëriñ Cheikh te bañ a gis sëriñ Cheikh te gis jëmmi sëriñ Saliou Touré ngeen bokk taxawal ko taxawalub liggéeyam ab naalam ci dëkk bi du nërmeel te du daay ndax taxawaayub Sëñ Tuubaa la loolee mooy sàkku téefam loolee nag mu ngi koy njëkke ci rakk boppam ji di si nga bilaat Touré mii rakkam xaratam la ak lu topp ca gannaaw rek sëñ sëñ mii daf ni ko léegi bi mu ko nuyoo ni ko lii laa bëgg fi yow sa laxasaay gii ak sa der gii sa baay jugu fi sa baay nag da ngeen koy doog waaye xamu leen ko woon ndax moom kat nee li muy wax bariwul fu muy wax waaye di wax lenn lenn nag ngir sëñ Tuubaa rek ak bàmmeelu boppam kon Serigne Cheikh Serigne Xaadim nee ñëwoon na fi démb waaye tey nag daal daal ñu dellusiwaat nag di waxaat ay rakam ak i bokkam ak di la indil siyaarub dongo yi waa kër suñu Saliou Touré ca Baxdaad nee seenub siyaar moo ne noonu ñu ngi sakku ñaan nag fas yéene nag nii nga xamee ni noonu la ko àndanteeg yéen insha allahu rabbi fox saxlawu ci ndamal ñaari réew la ko sëriñ Saalihu Ture daan wax da ko daan wax naan sa gémmiñ sama nopp tolla woo fa ma ndaw man nag mën na maa ñëw mën na maa woote mu ni ko mu ni ko bu la neexee kaata ci nopp yi kon nag diggam ak yéen nee moom ak yéen la nee doxalewul ci dara fas yéene nag na mu jàppante ak sëriñ bi am na ci wegeel goo xam ne diggam ak moom nee daa feeñ fekk kook sëñ Moustapha Lo way juram ak sëñ Ousmane Touré ak sëñ Mamor Masamba ñoom ñu bokkoon di jàng ca njaareem kon way juram la nee bàyyee moo ko njëkk indi fii ci moom ba démb la ko way juram sëñ Moustapha di ko wax ni ko kaamil yi ko jox yépp a ngi nii tegloo kon kookee jur la ci moom ci biir ak ci biti kon loolee lay jokk nag ci kaw bokk ci kaw taalibe ci kaw àndin ne diggam ak yéen tey la war a gën a ubbiku ndax nee na kay jur la woon day digle muy def waaye nee na yéen nag dana jàppante yéen ay baati mbubb sax nag ngir bëgg lépp jàkk wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf loo sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré nee na asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. sëriñ Cheikh nee na mi ngi nuyu sëriñ Xaadim Lo Gaydel bu baax. ne kaddu gi bu noppee ci li muy seere dina ko jox sëriñ Chérif Al Wali muy àggale ko. waaye daa bëgg seereel mbooloo mi yëpp. ne. nee xamul ku bëgg sëñ Saliou Touré jàmm waaye ku bëgg wala ku bëggal kër gi jàmm waaye ku ci jiitu jëmm ji di sëñ Xaadim Lo Gaydel amul ndax démb bi mu ñëwee fii jaxasoo na lool wóor na ko ni kilifa yu bare bare bari bu leen fekkoon dañuy daw dem ndax booba tàng na te boobu fii yëngu waaye yitteem yëpp bala moo dem mooy na fii dal rek jaral na ko démb mu ànd ak préfet dem kari oto ba ngir fexe ngir oto bi ñu ko téye foofa ngir oto bi mën a dem ne gannaaw gi la sëñ Cheikh mi woote ci oto bi ñu ni ko oto bi mi ngi dem amar leen départ na ñii dem ne sëñ Xaadim loo mii moo ko woowaat téléphone ni ko ñoom ñu ngi dem ca xool xooli oto ba mu ni ko jëlu ngay dem ndax oto ba ña ngay dem nee na waaye bàyyiwul de ñetti yoon woo na ko ndax dal am na nee te lu nekk it mi ngi koy ñaan di ko digal ci téléphone di ko conseiller ak ni mu war a doxee kon Sëñ Xaadim Lo Gaye del na ñëpp xam ni jàmm rek la bëggal Sëñ Saliou Touré moom la bëggal kër gi it démb it enveloppe la fi joxe bu téeméeri junni lii mu téye xamagu ko waaye wér na ko ne bu ëppul million du ko yées du nee na ko waaye wér na ko ne bu ëppul million yéesu ko kon loolu lépp nee si Cheikh nee na mi ngi lay sant te di ko ñaan te di la ñaanal te di la xam ni xamal ni kër gi sa kër la wayjur wi sa wayjur la ñoo ko bokk cër bi ci am ñoom nga ci am ne ñoom ñii kat amuñ ci Serigne Saliou Touré loo ci amul te biir nañu it lu leer nañu ni seq nga ak sëriñ bi lu sëñ bi sequl ak ñoom ñii ñu mu jur ne kon loolu loolu leer kon li ci des daal ñëpp xam ni ku bëgg sëñ Tuubaa ngi nii ku liggéey sëñ cubaa ku jàmm ñor ku jàmm tey ëllëg ñor lii daal mooy kàddu yi nga xam ni mu ngi ko seere li ci des nag nii mu ko waxee noonu la ko sàkkoo kollëre gi comme sëriñ bi kilifa la woon waaye ñun ni mu ko waxee naw ndaw xajul ci sunu diggante jaxasoo rek nee sëriñ Cheikh ne daa am lu muy faral di wax lu bare bare bari sëñ Basiru mu sëñ Abdou Xaalim bi bàyyi ko léegi moo ko waxoon ne ab ànd ay jëmm ñoo koy def waaye jaxasoo ay jikko ñoo koy def nee sëñ Bass loolu la ko waxoon ca tool ya ca muure nee loolu nag doxin woow yi la bëgg a doxe ak sëñ Xaadim Lo Gaydel mii doxin woo xam ne nii du doxinu ay jëmm waaye doxinu ay jikko lay doon doxinu nawlante yéenante jàmm ku ne yéene sa morom jàmm lu mu nekk ma nga ca ne loolu lii lay seeral ñëpp di ko seeral moom mii siñ xaadim waaye nag na mbooloo yëpp seeral ni siñ xaadim siñ seex nee na sant na siñ xaadim cant koo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem dem ba léegi tey la mu sa jot kàddu ku ne ñëw na fi waaye mu ngi soog a yëkkati ay kàddu boppam kon bu ko defee mu jox suñu xa Alwali Jeng ne li seriñ bi wax na ca kaw yoon wa ne sëñ Xaadim Ture mii di sa rakk dimbal dimbal ni ko ci ba mu ko woowee lam ko sant tegu ca baat nee na sëñ Cheikh sëñ Xaadim nee na mi ngi lay seereel nii li ko dimbali ci yoon bi sëñ Xaadim mi bi mu ko woowee la mu ko wax tegu ca baat da koo jëfee